mbokk internet yi daleen ak jàmm waa APR defati nañu seen mënin démb ci ab assemblée générale boo xamante ni nag ñi nga xam ne ñoom ñooy enseignants yi fare ci réseau des enseignants yu APR ñoo ko doon def euh, fële ca permanence bu parti bi nekkee ci diwaanu Ndakaaru ñoom ñi nag nekkee woon fa di xuloo xeex ŋàññante waaye nag li nga xam ne moo gën a choqué sax journaliste yi fa di nekkoon mooy saagante yi nga xamante ni nag nañ ko ci seen i mu nekk ci diggante Ahmed Suzanne Camara beneen ci ay enseignant boo xamante ni naka ñoom ñaar ñi daal daanaka ñoo jubóor woon ci ay kàddu ba mujjee di saagante nday génne ay wax yu ñaaw yoo xamante ni naka ñu ngi ko doon tegante ci seen i der ñoom ñaar ñi ñoom enseignant yi nga xamante ni nag fu mu nii seen xeex lépp mi ngi ci da war a ki nga xamante ni mooy Youssou mi nekk coordonnateur du réseau des enseignants yu APR bu Sénégal ñoom ñi jàpp ne dafa daal di feebar war a dem noppalu ji moo tax sax ñu daal di nag bëgg mu daal fiy jóge waaye naka du yombee noonu ndax moom Youssou Touré naka nekkul ne moo fa teg boppam naka ca bopp réseau bi lee ndax euh, président Macky Sall ci boppam moo ko nommé woon coordonnateur euh, de du réseau des enseignants yi faree ci APR moo tax fa mu nii nag guerre bi mi ngi sax sàpp ci diggante ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Youssou ak ñi ànd ak Ngenaar Sène Ngenaar Sène mi nga xamante ni sax moom yàgg euh, daanaka Youssou Touré moo ko daal di dala ci boobu le réseau waaye nag fa mu toll nii ci ñu koy gor ci la daal di bokk moom mi nga xamante sax démb démb bokkoon na ci ñi initié assemblée générale boobee nga xamante ne moom lañ doon def ca permanence bu APR waye daal seen mbir yi nag doy na waar lool ndax bari woon na ay saagante ak it tamit ay dóorante yoo xamante ne am na fa ba sax mujjantal gi dañ doon dàq journaliste yi génn ci salle bi bañ daal di dégg seen saagante yooyu mun ngeen am sax extrait bi nga xamante ni moom lañ ci jot a gis mu fuité ci boobu les rencontre nañ ko xool.